Euh, dañu fi daje woon tey fii ci ministère de la formation professionnelle doon fi dajeek ñi nga xam ni ñooy suñu mbokk partenaires yi nga xam ne ñoom ñooy gunge Sénégal ci mbirum formation professionnelle ak technique tey nag ndaje la moo xam ne ndaje mu am solo la euh, ma ko doon ubbi fii tey euh, di ndaje moo xam ne daf ñuy mën a permettre ñu saafonteeg suñu partenaires yooyu nga xam ne Euh, liggéey bu am solo la ñuy liggéey ci walu formation professionnelle ndax ñoom ñoo ñuy gunge comme ni ma leen ko waxee léegi di ñu gunge ci walu euh, formation di ñu gunge ci walu assistance technique waaye di ñu gunge it ci wàllu euh, kom maanaam koppar ndax bu ngeen ko xoolee ba xool lu ëpp téeméeri milliard ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoom dañ koy dugal ci walu formation professionnelle muy lu am solo ci diir ci diirub ñeenti at yoo xam ni def nañ fi téeméeri milliards lu ëpp téeméeri milliards ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett loolu muy loo xam ne lu ñu bëgg a souligner la ci kanamu askanu Sénégal yépp di leen wax ne mbir la moo xam ne euh, dafay jàppale askan wi ndaxte gis-gis bu bees bi nga xam ne moom la président basiru Diomaye Diakhar fay am ci wàllu pro formation professionnelle muy lu mu teg ci kanam ndaxte jàpp na ni moom ci la ñu war a jaar ngir

mbir moomu di industrialisation en parce que ci ndaw yi lañu ñu war a mën a jaar muy suñu première richesse fii ci réew mi ci la ñu war a jaar ngir Sénégal mën a développe looloo tax ndaje mi am solo lool te it ñuy muy euh, loo xam ne bëgg nañ koo lawal ci réew mi yëpp war duñu ko yemale rek ndakaaru ndaxte bëgg nañu fépp foo xam ni dañ fa dem ci réew mi fu gën a sori ci réew mi sax dana am. centre de formation yoo xam ne dañ fa tàggat ay ndaw ba ndaw yooyu mën a am liggéey loolu daal ci tënk moo doon ndaje mi ñu doon am fii amee fii ci formation professionnelle. jëmawaay bi mooy fexe ba ndawi Sénégal képp ku bëgg a am formation képp ku bëgg ñu tàggat la ci wàllu formation professionnel ak technique nga mën caa nga mën caa jot waaye it ñu lawal ko ci territoire national bi yëpp du yem rek ci région de Dakar waaye fu gën a sori. Euh, ci Ndakaaru dana am centre ay centre de formation te ñi ngi ci euh, ci tabax yeeg yooyu ñi ngi yëpp ci formation formateurs yi ba ndawi Sénégal yi fu fu ca waay ne soxla formation rek da nga ca jot incha allah ak nag ci pàccu euh, bu fekkente ni sax ñi nga xam ne dañ leen di tuddee ñu xam a marge marginal un tout petit ñu mel nii ñu ñuy wax naan ay nit yuy dund ak ay handicap la ñooñu it dinañu mën a fexe ba wutal leen formation ba ñu mën a jot ci formation professionnelle